képp ku nekk Mauritanie contactel Abdoulaye Diop xaas tournée internationale lay def ba Mauritanie ma nga biir Mauritanie nag la ko fa dese pour mu ñibbi Sénégal bëriwul wala mu jaaree fa sax jaar Gambie parce que Gambie tamit dëkkam la Abdoulaye Diop xaas réew mi koy wër Sénégal koy wër adduna bi koy wër Abdoulaye Diop xaas contact leen ko yéen ñi nekk Mauritanie Mauritanie yéen nekk Mauritanie dugg leen ci paasu Abdoulaye Diop xaas ngeen lijjanti numéro ba gis ko contacté Abdoulaye Diop xaas mu faj seeni jàngora jaaree noonu dem ñibbi Abdoulaye Diop Khass amul temps ma nga biir Mauritanie di ko lëmbe wasalaam loolu laa